asalaamaaleykum askan wi ñuy bàyyi xel ci seen site bu solo bii di sunugal 24 point net tey ñu dellusiwaat fii nga xam ne moo di ci diwaanu euh, jàmmalaay mbokk li ko waral nag euh, muy euh, xew-xew bu rëy ci lislaam muy jullit géej gi nga xamante ni tam moom la ñuy waajal. di ziar bu baax a baax xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké moom Cheikh Ahmadoul Bassir di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi ci barke Serigne Touba Khadim Rasoul di ziar xalif général des Baye Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall góor yàlla ak waa kër maam ñu koy amalee muy diwaanu jàmmalaay di ziar bu baax xalif général des Layènes sunu baay El Hadji Abdoulahi Thiaw Laye di ko ñaanal sunu borom mi yàggal ko fi ci barke yonent bi mu mel ni mbokk yi kay loolu la muy ñetti fan yi nga xamante ni tam am na ay programme xam ne moo nekk moo jiite kuréel julli géej gi ñetti fan yi ñu amal mooy la 19 le 20 le 21 le 19 bi nag mbokk yi dañ ci amal li nga xam ne mooy point de presse dañ ko amal te toftal ci li nga xam ne moo di panel le 20 septembre muy alxamis ñu daal di amal li nga xam ne mooy guddig maam Cheikh Ibrahima Fall nañ ko daawee def fii ci diwaanu Jàmmalaay waaye tamit le 21 septembre muy julli géej gi nga xam ne dañ ko amal waxtu wi nga xam ne moo di tàkkusaan waaye tamit ci sa sëriñ Fallu Abdul Xaadir mi nga xam ne at gu jot tabarkàlla moo ko doon jiitee ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi moom itam kon mbokk yi mu mel ni noonu lañ koy doxalee sunugal 24 point net di ànd ak yéen saa ne ci taxawaay bu am solo bi lee ci wàllum mboolem actualité ci wàllum diine mu mel ni ginnaaw si julli euh, li nga xam ne moo di julli géej gi yëpp bu ñu ko noppalee ginnaaw sëriñ Fallou Abdoul Khadir dinañ ci amal li nga xam ne mooy conférence de presse yi nga xam ne incha allah moo fas yéene tëj li nga xam ne moo di euh, euh, bés bu am solo bi lee kon mbokk noonu la la ñuy ànd ak yéen ci wàllu caméra bi rek di ci santaat bu baax Mamadou Dóor waar ci liggéey bu am solo bi lee l'infatigable ci wàllu réalisation bi di ki ànd ak sëriñ Aliou Top saa su ne ngeen Euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk sunugal 24 point net ni ñu ko waxee rek di waajal li nga xamante ni mu di euh, bés bu am bi di waajal julli géej gi mbokk yi jamono ñuy wax ñu ngi fii nag diwaanu jàmmalaay li ko waral mooy sabab bi julli géej gi nga xam ne ñoo ngi koy waajal incha allah ci kàttanu kàttanu yàlla suñu borom le 21 septembre balaa ñu def rek ñoo ngi toog ak monsieur Babacar Xuma xam nañ jot bi bariwul ndax moment bi ñuy wax ni ñoo ngi waajal panel bi nga xam ne ñoo ngi koy bëgg a waajal waaye tam mu may ñu tuuti ci temps rek ñu a waxtaan tuuti monsieur wa rahmatullahi taala wa waaw ah, maa ngi tudd Babacar Xuma di vice président màggal fàttaliku julli géej gi. waaw ah. monsieur Babacar Xuma ñu daal di ñëw ci sabab bi tey julli géej gi tey sabab bi inspiration bi ginnaaw ci xam nañ la gis ngeen ci ngeen ci liggéey liggéey bu am solo fan la bawoo. waaw maanaam xam nga jëf ji day jëf ju rëy ju kawe joo xam ne li tubaab di wax inédit musta mosuñu ko dégg fenn mosuñu koo gis fenn ah, ku tedd ki def ko Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te jamo yi mu koy def it mooy jamo yu nga xam ne noonam yi maanaam noonu Afrique yi muy tubaab yi ñëw nañu bu ko gàcceel ah bugg a gàcceel islaam ah jël ko tooñ ko di ko yóbbu fu sore sore fu sori ay bokkam fu sori am réewam rek utuñu lenn loolu rek toroxal islaam utuñu lenn loolu moom ci boppam Cheikh Bamba bu bàyyiwulu islam it bañati gëm islaam loolu moo waraloon bis bi loolu moo waroon tukki boobu waaye suñ borom may na ko nag loo xam ne eh, lu yéeme la mayu ko kenn macha allah gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu wax na ko waxaat ko waxaat ko bind na ko ñeneen ñi ko xamit bind nañ ko waaw la ko suñ borom may moo tax mu sànni der bi ci géej gi julli ndax bañ a eh, eh, faat waxtu wa ok monsieur Babacar Xuma mu mel nii tey euh, dem nañ ba ngeen xamante ni euh, euh, am ngeen ci ndigal ni ñu ko waxee ndigal a tax mu toll ba fii mu mel ni jamonoy Serigne Saliou bu ñu fàttali ko dafa mel ni ki ndigal gaa ngi béy woon ci jamonoy Serigne Saliou. dëgg la waaw nga ay taalibe yu baax yu mag yu dëkk Parcelles Assainies ci jamono jooju nga xam ne ñu ngi waaj a màggal le centenaire de l'exil maanaam téeméeri atu bi sëñ bi dee ci géej gi mag ñooñu nag di taalibe Serigne Mountakha. ña ca ëpp ñoo toog ba ca xalaat ñu ne waaw ñun de seet nañu ne lépp ñu ngi koy màggal ci xarnu bi ba mu des julli géej gi julli géej gi daal dafa mel ne nit ñi dañ ko fàtte noonu lañ ca waxtaanee daal di wëlbatiku dem ba ci sëñ bi sëñ Muntaxa yëgal ko ko sëñ Muntaxa ne loolu nag duut leen ma ko wax kaay leen nag ñu ànd ba ca ku tedd ka muy sëñ Saliou ñu uti ndigal foofa leen sëñ Saliou joxe ndigal ne def leen ko bisum Ndakaaru kon nag ñun suñu combat mu fii mooy fexe ba màggal gi doon bisum Ndakaaru bisum Ndakaaru nag du lu ndaw bisum Ndakaaru ni ko ku tedd ki gise woon déggi woon yeggaguñ ca waaye xëy na suñuy sit sitaat dañ ca yegg bisum Ndakaaru mooy lan takkusaanu 21 septembre nga xam ne ci 21 septembre takkusaan ci la julli woon ci géej gi 21 septembre boobu bis dana ñëw benn imam rek ay nekk dans la capitale du Sénégal képp kuy imam képp kuy jullit di julli nga nga nga nga nga jokk ci imam imaamu Cheikh Ahmad Bamba boobu loola mooy def leen ko bisum Dakar te boo xoolee depuis bañ ko tàmbaleeg léegi nga xool ni muy avancé nga xool ni muy yokkee ba biti bu réew jot ci ah, nga ba toutes les télévisions euh, ba toutes les presses nationales et jot ci nga xam ne jëmm jooju di Cheikh Saliou Mbacké du wax mukk mukk mukk dellu gannaaw. Euh, monsieur Xuma fi ñuy daanelee rek euh, mooy julli géej gi incha allah le 21 septembre kon ci tàkkusaan la ñu ngi koy xaarandi mu mel ni kon ci rakk mën nañu wax ñeenti rakk la ñu julli ci tàkkusaan rek la ñu koy def julli tàkkusaan te it kan mooy faral di li nga xam ne moo di julli lañ koy xaar incha allah. waaw ki faral di jiite mooy. imaamu imaamu raatibu Touba mooy uh, uh, uh, njabootu imaamul imaam yi mooy sëñ Abdou Khadre Mbacké muy sëñ Fallou Mbacké nga xam ne mooy imaam ni ma ko waxee léegi Touba ah di doomu imaam imaam yi kooku naka jekk moo fi ñëw di di di di waaye dafa ren dafa am ay yees yees yu ci am maanaam gan goo xam ne ñu ngi koy teertu wallahi azim mam ni man mel nañ doon na na jullit yi doon teeru yonent bi ah ak way yu rafet yooyu doon ala taala al badri alayna noonu la ñuy teeroo sëñ bas Abdou Khadr waaw moo su te ñëw sëñ bas Abdou Khadr la rakk ji muy porte parole mosu fee ñëw waaye nag at mu jot dana yable waaye bi yoon nag dafa ne man sama bopp man bay ñëw kon nag am nañ gan gu màgg goo xam ne bëgg na ñun ñëpp képp kuy jullit képp kuy murit waxuma murit ak jullit ñëpp jàpp ci ba gan gi dëgg dëgg fi yàlla yaakaar ji mu am fii mu bën a gis leneen du Babacar mu mel ni tamit fi may daan le site bi macha allah par rapport euh, organisation bi euh, at yi weesu ak at bi euh, naka ngeen dundee ndax satisfait xel gën naa dal par rapport ak jamono yi weesu. waaw waaw macha allah boo xoolee boo xoolee mbiru sëñ bi xam nga mbiru sëñ moom dafa yéeme ndax ñun dañuy jël lépp jox ko sëñ bi waaye sëñ bi moom itam lañu ñu bëgg it mi ngi ñu koy defal léeg-léeg da ngay dem ba càgg da ngay da ngay da ngay da ngay da xaw a tiit. ah waaye sëñ bi woon la yoo xam ne ay mbir yoo xam ne da nga ne man lu tax may tiit xoolal bi xoolal ouvrage bi nga xam ne moo traversé fañ doon jullee fañu doon jullee la dagg traversé ja jàkka ja fa newoon sax nga xam ne sëñ Mourtala moo ko tracé dandi dind nañ ko waaye xoolal li ñu am tey. xoolal xoolal àll bii ne yàmbalang bi ñu am tey xoolal jàkk ji ñu am tey nga xam ne man na fukki yoon jàkk jëlee ah nga xam ne la ñuy wax ne sëñ waa amul tànk gannaaw loolu ñun gis nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax lañu lañu lañu lañ ci la ma ci yokk rek mooy euh, li may faral di wax euh, sëñ bi boo ba génnee xam-xam génn ndigal nekkatuloo ci Cheikh Ahmadou Bamba boo génnee xam-xam génn ndigal nekkatuloo ci Cheikh Ahmadou Bamba kon nag nañu góorgóorlu ci xam-xam sàkku xam-xam sàkkal ko suñu njaboot ñu xam sëñ bi xam ko xam bu wér fexe ba suñu doom yi nga xam ne suñu tuut tànk yi ni xam ci nekk ci école yi ah ñu xamal leen kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba ah li ci bind yi nga xam ne sëñ mag bind na ko ñu di ko xamal taalibe yi di ko xamal jullit yi di ko xamal sax citoyen sénégalais ndax sëñ bi Cheikh Bamba ñëwul ñëwul rek pour ab murit wax na ko moom man sax suma tarixa ah ñëwul pour ab murit wallahi azim ñëwul sax pour nitu diine dafa ñëw pour képp koo xam ne doomu aadama nga ah te bu loolu kon nag euh, loolu nañ ko delloo njukkam njukkal Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. jërëjëf sëñ Xuma Babacar ñu ngi lay santaat bu baax. ok jërëjëf jazakallah xeyran jërëjëf tarkalla. waaw mbokk yi ni ñu leen ko waxee noonu rek la. dégg ngeen muy jullik euh, waajal euh, julli géej gi gis ngeen ni ñu ko waxee monsieur Babacar Xuma bokk tamit ci kuréel bi nga xam ne organisation Euh, kuréel julli géej gi 21 septembre bi ñuy waajal 2018 euh, mu mel ni incha allah muy ajjuma ak jàmm ci kàttanu sunu borom le 21 septembre 2018 muy julli géej gi nga xam ne ñoo ngi koy waajal at gu jot waaye ni ma ko waxee mu mel ni itam ki ko fëral fësal ni jiite incha allah muy Serigne Fallou Abdoul Khadr Mbacké waaye itam ren moom nee na am na surprise bi ci tegu muy surprise bi nga xamante ne nee na sëñ Bass at gu jot daan na waaye ren gi incha allah moo euh, fas yéene teewal tey boppam kon donc mbokk yi ñuy santaat bu baax di ñaanalaat bu baax a baax xalif général des mourides sëriñ Mountakha Mbacké moom Cheikh Ahmadoul Bachir di ko ñaan suñu borom gën ko fee yàggal noonu la aussi itam sëriñ euh, xalif général des Baye ñoo ngi la koy ñaanal bu baax a baax a baax mbokk yu 21 septembre Mamadou Dóor waar ci wàllu caméra bi Mouhamadou Lamine Muntaxa ci wàllu présentation bi dina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu